Euh, sama question bi mujj mooy euh, dama ñëw ci ñaari xale yoo xamante ne nii ya bi ñu duggsee ci làmb yàggul mais ñu nekk xale yoo xamante ne làmb da leen a bàyyi xel te ñu nekk ay jàmbaar ne ko combat boo xamante ne nii képp ku ci jóge mën na ubbiwaat sa yoonu làmb te mën na laa yóbbu sooy muy diggante Ada Fass ak dafa Mbeur naka nga gisee ñaari xale yi seen préparation seen seen seen seen xas-xas loo ñoom ñaar naka nga gisee boobu combat. waaw combat bu neex la nag. combat bu neex a neex neex a neex ndax ñoom ñaan ñëpp tey ji mën naa ni xaw ma leen nag mais ki ci xaw a am as tuut Ada Fass ma mosuma daje moom ma koo gis mais ki ci xaw a am as tuut ma fekkee ay entraînement mag yooyu muy Tapha Mbeur ndax fekk naa ko ci koo xam ne ki koy entraîné xaw ma kan de mais du entraîné mbër pare ñu naan parewul comme musa téye ba pare doole di nga ko am te di nga am fraîcheur physique bu baax muy gii olympique club am na kët su bu baax musculation boo xam ne dafa complet ci lépp lu la liggéey si endurance beeg si doole jeeg ci vivacité beeg lépp da koy liggéey ak yow mais fekk naa ko fa muy entraîné te mën naa ni 4 mois avant combat bi taxaw laa ko fa fekk dafa yàgg nag. Mm-hmm. yàgg na préparé wu. mais ñu ngi dinañ bëre combat bi ndax Ada Fass bërekat la. Mm-hmm. bërekat la dafa mbër bërekat la mais soo xoolee Ada moo xaw a ëpp bëre. Ada moo xaw a ëpp bëre ndax dafa mbër daa bëgg bëre wet. li ma koy digal mooy na sàmm wetam gi rek te xam ne am na xale boo xam ne daa nekk ci yoon te bërekat la te gëm na boppam jàpp na lu taxaw si kanamam moo la mën muy Ada Fass kon kooku Tapha Mbeur moo ko jiitu ci làmb ne ñëw bëreeg moom bëre mag rek. bëre mooy lan. bëre mag mooy rek jéem a xool rek lu mu def mu dindi ba jéem a xool nu mu ko naxee daan rek. gis ngeen nañu andi feemu ndax daan tey Lamine lañ fi lañ fi dalaloon waxtaan ak moom ci émission bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo